Alassane Ouattara duma rek leneen duma rek yaa yey naan baal ma ji ne il présenté des excuses on s'en fout déjà le peuple ivoirien et le peuple sénégalais sont outrés nañ bàyyi naa féq ku def loo warul def dañ naan la lii war a koo def lii ñaaw na waaye ñëpp daan moom kay ba dégg rek dama ñu ubbi télé yi rek ñëpp daan waaye comme balu naa xëy dañ ko war a baal waaw kon ku ñëwoon tey rey sama jabar après ne ma baal ñu àq ñu baal ko ñu bàyyi ko ñu bi ku ñëwoon tey sàcc ma ni baal ma ñu baal ko ñibbi këram ku ñëw escroquer ba 10 millions dem ni baal def ñu ne baal ko ñibbi këram kon ñu ubbi prison yëpp kon ñu ubbi prison yëpp nañ ñemee dëgg Sénégal ah Sénégal nañu wax dëgg waaye naafeq gi ak par parlo bi ëpp na dama ubbi télé yi gis ñi daan moom kay comme balu naax kay ma dina xool de sax da xool émission yi ma yoree rek ma ne ci ay far moo metti waa xanaa kooku moo gën ci nekk prison bi te balu nañu ba sonn kenn baalu leen ah, kon mu defee lu garaaw daal boo ne baal ma rek après doo dem prison waaye comme waa ci balu ndax kay ah mu kenn dañ ko doon bàyyi ma ne waa ñii émission matinale bi ñu nu yàpp ko yàpp